ñu jukki leen li gën a fës ci biir internet bi amee internet yu 24 actu yu bàkk ba jibatina dañu koy dooree rek affaire Ousmane Sonko ñu gis rek ni mu tàngeewu rek ci diwaanu Ndakaaru ak yeneen gox rek nekkee fii ci euh, Sénégal démb nag diwaanu Bignona rek ñoo daal di jël rek seen wàll ci mile mbir ngir rek viol menace de mort ñu daal koy toftal rek ci seen doodu leader bi leen di Ousmane Sonko tax rek xale ya daal di génn mer ba futtu rek ngir ne loolee duñ ko nangu benn yoon te jaral na rek ñu daal di tayle seen dund protéger seen leader bile di Ousmane Sonko ah, ci affaire Ousmane Sonko rek ci la ñuy daal di dese yi gis nañ ne rek ki nga xamante ni moo soloon rek yëre bu rouge bi doon taal li nga xamante ni moo di oto yi nekkee foofee ca ah, cité kër góor gi ba brigade d'intervention polyvalente di BIP rek bu police daal di koy tegoon loxo mu sukkandiku rek ci libération mais ba mu janoo rek ak enquêteurs yi lam leen xamal rek ne moom regretté wu ca dara ca loolee nga xamante ni bii rek moom moo ko def xale bu góor bi mu ngi wuyoo ci turu Mouhamed waaye moom na regretté wu ca dara ndaxte général li ñu bëgg rek teg ci ndoddal leaderu Pastef bi di Ousmane Sonko moom du ko nangu benn yoon ba tax rek moom nee na jël lépp luy responsabilité am ngir assumer lépp loo xamante ni def na ko rek jëm ci cité kër góor gi mu di oto ya nga xamante ni rek moom moo ko fa daal di taal moom mu xamandooy rek moo yëkkati yooyee la kàddu daal di koy jëme rek ci enquêteur yooyee ba tey rek dañuy daal di wéyandi rek ci affaire Ousmane Sonko gis nañ ne rek ki nga xamante ni moo di Adji Sarr di ndaw si waral mbile coo rek jëm ci moom moom nag ndaw sañu ko boolee rek mu doon maase ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko mu di Mame Ba ginnaaw rek ba ñu ko wooloo rek mu janoo ko enquêteurs yi moom lam xam na ne nee na am na benn moment dafa daal di génnoon daal di bàyyi Ousmane Sonko ak Adji Sarr rek ca boobule saal waaye nee na moom soriwul dara waaye déggul benn yoon ay yuuxu déggul tamit benn yoon rek loo xamante ni rek mën naa nuru lii di viol déggul benn yuuxu nee na déggul tamit benn acte boo xamante ni bii rek kii di Adji Sarr def na ko ngir bëgg rek ñu daal di koy jàppale mu nuru daal dara loo xamante ni daal viol la nee na moom gisu ci dara loo xamante ni nuru na ko bu ñu sukkandikoo rek ci l'observateur bi ñu xamal yooyu les information waaye ba tey rek yemuñu ca mama ba daal dañuy jàll ci ki nga xamante ni rek moo di eh, borom këru borom eh, salon de massage bi lee moom nag xam le ne moom it nekkoon na ci côté boobu lee waaye déggul benn yoon yuuxu ndax moom soriwutoon dara fi ñu doon defalee massage bi eh, kii di Ousmane Sonko mu mel ne rek ba tey yëf yam ngay wéyandi waaye nag ndax leer na am déet loolu rek yoon mooñ ci mën a xamal ma ngay gën di ñu koy tuumaal moo ko defam déet lépp lu ci fasaa rek jëm ci mile mi dinañ leen ko digtalaat ci suñu yeneen ne ki nga xamante ne ni rek moo di Moustapha Diakhaté dafa daal di ne bii daal dafa daal di digle ngir ni kii di Ousmane Sonko daal dina koy wax ne moom la amee ba tax rek muy fréquenté activités yi salon de massage yi moom nee na loolu convaincre ko benn yoon ci plateau bu mu seqoon ak tolluwaay foofee rek ca Seneweb l'ex président du groupe parlementaire BBI di Moustapha Diakhaté daal dinay xamle ne kenn kinésithérapeute yi ñoom dañoo war a porter plainte rek ngir ñu daal di tëj lépp loo xamante ni rek da di ab salon de massage moom Moustapha Diakhaté moo daal di xamle loolu nee daal nañ def ab plainte ngir ñu tëj rek lépp luy salon de massage waaye daal nee dal dugg ca yooyu les saal moom Moustapha Diakhaté nee na convaincre ko benn yoon dañuy daal di desandi rek ba tey ci mbiru Ousmane Sonko gis na ki nga xamante ni rek moo di maître El Hadj Diouf nee na dafay jug rek ngir défendre ki nga xamante ni rek moo di Adji Sarr ginnaaw bañ ko invité rek ca émission blanche boobee di am foofee ah, ca wal fajri maître El Hadj Diouf nee na ne boobee ba léegi rek nit ñi dañuy défendre ki nga xamante ni bii moo di Ousmane Sonko ñëpp daal di beddi ki nga xamante ni moo di Adji Sarr ba tax rek moom mu ne dafay daal di jug rek ngir daal koy faral jamono ji daal lañ mën a jàpp rek moo di maître El Hadj moom nee na moom mooy ki nga xamante ni rek moo di euh, Adji Sarr jëm ci mbirum Ousmane Sonko ginnaaw viol ak menace de mort bi nga xamante teg nañ ko ci ndoddu leaderu Pastef bile ci mbiru Ousmane Sonko rek ba tey ci la ñuy daal di dese nii gis nañ rek ëttu jéglekaay bile di Sénégal daf ñoo daal di xamal ne jamono ji rek ñuy wax ak yéen xalif de Serigne Cheikh Khadim Mbacke Daaru Muxti di Serigne Abdourahmane Mbacke nekk ki nga xamante ni rek moo di Serigne Ousmane Sonko dafa daal di ñëw rek rendre visite ki nga xamante ni rek moo di amal nag ab entretien bu yaatu yaatu ci seen diggante ñoom ñaar waaye lañ wax nag ba léegi nii kenn xamagu ko ñu addu ci leneen lu tollook ñaari at mu daal di réer muy bébé Murtada Mbacke ba jamono ji rek ñuy wax ak yéen kenn tegagu ko euh, bët mu nekkoon nag 21 février 2019 ba jamono ji rek ñuy wax ak yéen bébé Murtada Mbacke nag mi ngi am lu tollook ñetti at boobu ba tey ay waajuram gisuñu ko benn yoon mu tollook ñaari at bébé Murtada ba tey gi kenn tegagu ko bët ba tax rek ca coow yi nga xamante nemmeeku woon nañ ko ca rek ca réeram googee mu di kii di Serigne Modou Mbacke Baara Doli ba sax rek ñu daal ko ci joxoñoon baaraamu tuuma ngir xam le ne boobu lee réer rek moom loxoom surtout ca ba taxoon rek waa dikk daal di ñëwoon rek defoon ab enquête rek ci moom moom lee di sëriñ Modou Mbacke Baara Doli ay seetkat ak ay sëriñ ak ñëpp rek doon nañ dugg rek ca boobule enquête di def seen investigation waaye ba jamono ji rek ñuy wax ak yéen xale boobu boobulee kenn tegagu ko bët nag ay waajuram ba tey jii rek ñu ngi ci njàqare ngir bëgg rek seen doom ji rek di bébé Moutada ñu bëgg koo gis lool ba léegi nii mënuñu koo gis waa ñu ñaan rek suñu borom daal leen koy niital ba ñu daal di gis rek seen xale boobulee ginnaaw rek ba mu réeréeg léegi def na nag lu tolloo ko ñaari at dañu koy daal di jeexaleek triste nouvelle bu wàcc ci communauté Thiantakone mu di euh, soxna Wala Mboup nekk waajur ci Serigne saalu Thioune Gueule Tapée mii di xalifa Serigne Cheikh Béthio Thioune moo daal di rek génn àddina ni ki démb rek ci talaata ji ginnaaw rek ba ñu ko hospitalisé woon rek ci structure sanitaire yi nekkee fii euh, ci Ndakaaru waaye nag dinañ ko jenc ci ki tey ci àllarba ji foofe rek ca cimetière Bakhiya euh, bu Touba équipe bu 24 actu yëpp di ko jaale rek famille Thioune bi yëpp ak képp koo xamante ni rek cantaakun nga tey ñaan rek suñu borom daal di koy xaare ca aljana yi gën a kawe li rekk moo fi gënoon a fës amee internet yi di dajale doon ba ëllëg ak jàmm